magie moo leen di may kooru biddéew mais biddéew biddéew man bëgg xam sa sama jabar wala Germaine ma sama jabar ba dama tegal may añ d'accord nag mu nga liggéey dimanche mais ba 16h añaguma c'est pas sérieux jottali ma xooñ gi yow mere naa la torop lu xew. nga yëg ni ni Mass day takk deuxième femme yëgaloo ma comprendre ma rek yow tamit. mais attends yow sa famille ñun rek la ñuy xaar léegi nag. danga may jiitu dinaa leen fekk si. ok d'accord léegi defal lu la neex. Maggi moo leen doon may kooru biddéew.